cité waaye ñoo ngi fii di visité ànd ak soxna ñaama soirée ak ay satu dara du leen ump nag ndax lépp lu xew ñu ngi leen koy wone donte ànduñu ak man professionnel waaye macha allah ay satu moo nekk ci caméra bi c'est importance waaw ñoo ngi wër dëkk bi ñoo ngi visité ñoo ngi consulté aussi ñoo ngi faj ñoo ngi wane preuve yi c'est normal ñu génn visité aussi dëkk bi Euh, pour waa Sénégal xam si li ñu nekk waa Afrique waa monde entier daal ñu xam ne sëriñ bi moo ngi si jàmm bu baax mm-hmm. waaw bu defee liggéeyam ba pare day génn visiter mm-hmm. vraiment gën a xam dëkk bi sa importance mm-hmm. waaw fii nag ñu ne benn benn benn jàmbaar benn soldat euh, moo doon xeexal France moom la gars yi boom ñu indi ko fi n'est-ce pas. soldat inconnu waaw waaw soldat kenn xamul kenn xamul. turam waaw mais ñu saa su ne ñu koy rendre hommage fii daal macha allah. ngoon bu ne ñu allumer la flamme. ngoon bu ne ñu allumer la flamme macha allah. dañ fi ñëwoon rek c'est importance. waaw macha allah kon nag mun nañ defoon. mun nañ dem mun nañ dem waaw. yaa ngi jël. Ini di jalan ya, karena jualan. Ini di situ sudah, ini lagi. Ini di situ 14. C'est pas grave. C'est par ici, madame. Ah, c'est par ici qu'on oui. monte. Tout à fait. Thank

waaw. waaw nee na kon da nga koy teg après boo ko jëlaat.